salaamaaleykum Meouane TV la seule télé en ligne qui fait le buzz dans la commune ñoo ngi leen di ziar bi ñëpp di ziar euh, tous les Méouanois et Méouanoises euh, seen mbokk la seen rakk Youga Sow conseil départemental di yëngatu ci politique euh, fan yële na ne defoon naa benn communiqué de presse conférence de presse à Méouane expliqué donc sama diggante ak Cheikh Sall pour mu leer indi ay leeral donc euh, je pense que bi loolu jàllee aussi def nañ ci une semaine démb am na benn boo xamante ni jël naa ko mu jëm si politique et jàpp naa ni yoon la wala war na mu indi ay leeral ci mbokki néewaan si ak néewaan waay yépp nga xamante ni ñii dañu ma sopp ñii dañ bëgg ndax samay conviction mu indi ci ay leeral Eh, leeral bi nag mooy démb jël naa benn choix muy alliance ak suma rak muy suñu maire Bara Ndiaye tête de liste Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Meouane ñu bokk nag Benno Bokk Yaakaar lu yàgg depuis 2012 ñu ànd di liggéey ànd ak Macky Sall yàlla def 2014 ma doon conseil départemental ñu investir ma ci le site Lui aussi, il investira le CLC Bernard Bokoyakar à la quatrième position au niveau départemental. loolu nag yàqul woon sama combat samay conviction mooy combat yi mu mënee à Méouane pour le développement de la commune de Méouane mais gis-gis bépp bu ma am jëmale ko si commune bi jaarul loolu dama koy wax loolu lu leer laaj na donc moom moo waral ñu bari remarqué na sax ci réseaux sociaux yi remarqué na samay démarche buy am naa ne bari yoo xamante ne avec conviction et principe lañ ko mën sama alliance ak euh, Bara Ndiaye nag te demis benn bokk yaakaar gërëmaale suma mag Pape Diouf muy tête de liste euh, sama grand aussi moom tamit mu bokk ci ñi nga xamante ni

consulter samay conseil gisuma ci ak au niveau supérieur au niveau la gisuma ci benn inconvénient ànd ak moom ànd ak moom aussi ay principe la principe yi moom lu jëmale kanam Méouane lu jëmale kanam Méouane buñ ci gisee aussi loo xamante ni jàpp nañ ni lii jaaru yoon dañ koy wax mais avec une autre manière mooy face à face wax ko ñu yàlla dimbalee nag ñu dem ba mu tege commune bi la mu waxoon nañu def ko ou bien presque une communication interne entre les gens ci ont recommandation yi bu ah dañ l'école bàyyi l'école, de la population bi di waxtaan ak ci combat yi man comme dit tout à l'heure c'est c'est un choix bien réfléchi parce que politique bi fi mu damay jël candidat à part l'opposition, on a tous les candidats, il y a plus Voilà, ils sont proches de son excellence, euh, le président de la République. donc logiquement nous est Si l'issue si ci au départ au niveau départemental logiquement

ou bien ma ànd ak donc soit nous mu mënoon def def aussi ça soulevera de vives contradictions ou bien ça sera un débat donc fait au niveau communal mais nous, ñu dañ pas xel bu baax même man sama choix envers M. le maire c'est le choix boo xam une conviction la et principe et jàpp naa ne c'est une jeune au moins, où je vous parle qui a la compétence ou bien les compétences ou bien les idées accompagner jeunes les àndal pour au moins poser les gens au développement durable de la commune de Mewan donc loolu moo waral moo war là ay parce que wax je veux aussi c'est normal am d'accord nous d'accord mais quoi qu'il en soit je serai là pour les Méouanois je serai là pour les populations de Méouane ma ànd ak Baara teewul ma défendre et c'est ça qui est qui qui est important et comme vous may wax euh, il suit la vision du président de la République président de la république instruction yi mu joxe yëpp je pense que bu ko suiviwul tamit dañuy taxaw fëgg taabal wax ak mu à notre manière muy interne muy externe te jàpp naa ni incha allah rabbi mu ñu yàlla dimbali en collaboration avec mon frère Pape Diouf te de liste avec ñëpp ñu nekk newoon di jàppale Baara Ndiaye ñu gën a ubbeeku gën a dem suñu waxtaan ak ñoom les réalisations aussi, capitaliser. Donc, j'invite la maire à capitaliser toutes ces réalisations, toutes ces réalisations au niveau communal. On connaît les localités, on Donc, je pense que nous avons le projet, parce que aussi, je pense que dans les jours à venir, il y a Et je pense que c'est dans cette lancée qu'on peut développer, mais on peut développer, mais Il y a le de trop, mais politique. Politique, voilà c'est li ñu le danger le danger la politique elle est dangereuse waaye euh, comme il y a ci ñu nous ci dañ ci ànd ak respect à conviction li ñu wax lépp duñ ci xas parce que l'on lañ ñu conseil mais incha allah li ñu ci gëm daañu ko wax donc di wax la jeunesse aussi que euh, man sama choix politique mais su ma duggee politique c'est pour une cause noble parce que nous sommes dans dans une localité où la majeure partie de la jeunesse foofu donc jeunesse bii ñun ñii tey jii ñu soxla nañ ay formation soxla nañ lii yëpp dañ ci dox incha allah parce que yàlla mën nañu jàng voilà ñu jàng ba sori si njàng yi incha dañ teewal suñu jeunesse bu baax a baax teewal les femmes teewal ñëpp ñi nga xamante ne c'est des néants te man su ma ko waxee war ngeen ko gëm parce que maa ngi ci instance de décision bu mag fa ñuy décider au niveau te incha allah rabbi donc bokkuma ci liste Benno Bokk au niveau communal. Par incha na naa bokk ci biir liggéey bi ba ñu investir ñu yóbbul dara ndax bu dee compétence su et je pense que loolu mi c'est ci Néewar yëpp ak yëpp euh, tous les noonu ñu bu baax ci nga kan mooy profil bu baax bi kan moo ànd ak ki nga xamante ne tey jii moom ñu ne naa wax ak président face to face qui a les compétences kan moo fi gën a doon jeune ngeen xool parce que ne commune bi toll na foo xamante ne mënu muy jël rek saa saa ko jox ko mag yi màgget yi nga xamante ni vraiment jeexawul ak yeneen wër vraiment ngeen excuse ma c'est des vautours seen seen seen lépp jeex na ay mag la ñoo xam ne fu ne dem nañ fa mel ne sama conscience politique yëpp xam nañ ko sama consensus ak sama engagement lu ma gëm wax lu ma gëm ni lii gëm ñëpp xam nañ ko motax tax rassurer rassuré leen mais woon ñu leen lu intérêt personnel mu ñu yëngal ci politique li ma gëm ba gëm du ci politique parce que ba may jàng di dem école voilà di am ay ay contrat di am leneen boobu xaw ma luy politique wante ci syndicalisme laa jëkkee pour ñu ko xamul je suis syndicat liste rouge à la faculté de lettres d'un président amical étudiant nekk ci mouvement yi mouvement citoyen yi nekk ci lépp donc tey jii ñun nañ waxante dëgg ñun Mewane moo ñu yor Mewane na seen interpelle daan bu ñu seen interpelle nag dañu war a xool choix nag mu jafe la waaye yàlla def na lañ ma nangul sama choix choix bi ma jël mooy ànd ak monsieur le maire Bara Ndiaye ak képp ko ànd ak moom ñu defar commune bi donc je pense très bien que loolu moo doon li nga xamante ni am naa pour joxe ko comme communiqué ñu wax ni nag je serai le garant de la commune

gis nañ ni Moussa Fall dafa bëri ay chantier ñu ngi chantier si pare na pour ànd ak moom ci chantier yi gis nañ ni mi ngi taxawal benn stade bu mag bi nga xam nga xam ne mooy commune bu Mewane tey stade boobu tey est-ce que demagum nga ko wala demagum. waaw <laughs> question bu pertinente la am na solo trop ah comme ni nga wax moom boo ànd ak nit moom vraiment lu mu sumb da nga si àndal moom donc gis nañ les travaux vraiment ñu ngi koy accéléré stade bi Mewane presque pare na. incha allah maa ngi doon dugg si ci mbir mi donc am na lu bari xam naa ko am na loo xam ne dinaa ko laaj donc le chargé de communication ñu xool réalisation yi chantier yi mu def yëpp lépp lu def si commune bi rek ñu capitaliser ko la capitalisation donc des réalisations comme nous l'avons fait euh, comme nous l'avons fait au niveau du conseil départemental dans le sur le plan éducatif sur le plan de la santé ak lépp lépp loo xam ne def na ko je penserais bien que daan ko capitaliser te loolu moom mbégte lay doon ma ànd ci wane ko hein, au nom du, du, du, du maire Maragay au nom de, de son excellence le président de la République. waaw je pense que par là pour donner a renseigner parce que incha allah loolu moom xam naa ni balaa élection yi yëpp ko les données ak chiffres yi lañ lañ fi fekkoon ak yooyu yëpp ñu ànd ci ñu koy fësal ñu koy et c'est ça la politique moi en ak voilà donc nga koy vraiment avec sincérité hein, avec des recherches scientifiques ah avec des des des avec une base de données nga ni lii la si fekkoon lii la si def lii ak lii ak lii te nag wax dëgg yàlla am na lu ci mën a teg bët teg baaraam ni lii moo ko fi def instant bi soo demee ah je pense que gris bi mi ngi defar les gris gris gris bi def euh, couverture bi presque pare na hein, li fa des daanaka tout. et je pense que balaa élection yi dina opérationnel te bu opérationnel ñoom ñoo tax c'est la jeunesse de Meouane. mais gis na gis na ne stade ba liggéey na fa ay projecteurs di ko fa am gazon am gazon. est-ce yaakaar na ni tey est-ce que loolu war na am am am na wala amul. non yooyu moom ñu ci répondre de toute façon daal stade bi moom je pense que dina opérationnel te buñ dee wax donc stade bu opérationnel commodité yu bëri dina fa am dina répondre ak ay normes yu bëree bëri donc yooyu day laaj ay renseignements yu bëree bari li ma ci mën a wax daal mooy euh, stade bi moom jël na forme léegi mu pare am naa yaakaar balaa élection yi incha allah daal di pare. بوبا لو كابيتاليزم وا ان شاء الله يلا باخ نكو لول لا ني يعني. نيان كومين دا ميوان يو استاد بي غنا رافيت بلا خمالتي ان سي مي كوم اتاكا اي امور يعني دو

bu leen kenn jënde xaalis ku leen jënd ñu liggéey dem leen ngeen liggéey su leen liggéeyee bu élection ba ngeen xool bu baax parce que l' intérêt de Meouane est en jeu bu leen nit jël parce que y a des leaders ñu teg ay chemin naan su ma jëlee cinq mille emploi kër bu nekk benn emploi cinq cinq cent emploi kenn ku nekk fexe ñaar ba cinq cent fois deux donc day doon un mille wala ku bu fa quatre voté ça doon deux mille francs deux mille électeurs mu gañ élection loolu dafa yomb calcul yooyu bon voilà yëmbul commune commune de Mélange yeewu lañ je pense que tey jii toll lañ foo xamante ni war nañoo teg pro euh, candidat bu nekk profil am xool ko.